asalaamualeykum mbokki Thiès mbokki Sénégal alhamdulillah je rends grâce à ñëwuma woon pour jël kàddu dama ñëwoon pour sant yàlla ci yéene bi ñu amoon mu taxawuñu ba mu mat tey j'étais venu poser des actes ànd ko ak jàmbaari jigéen ñi Cees yi daje fi ci teewaayu gouverneur ak famille jigéen ñu baax ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee barab bi à commencer par suñu yaay ah awa xollu jeey jeewo dukkure absa kamara biige kamara ma bëgg ñépp àndandoon ne alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah wasalaam ba ma nee brave waxuma femme de de brave laa wax et ces braves ont toujours ces braves hommes connus ñu ngi fiy sargal di leen wax ñëpp a côté d'eux y avait de grandes dames bu ko d'ailleurs quand je suis venu ici et que la présidente est venue ma dire monsieur le gouverneur ma ne ko waaw mu ne ma ah ñun kat dañu am lu ñu naqari ma ne ko loolu lan la boobu nag naa ngi doog a dugg sax suma bureau teg samay bagage bu mu ñëwee sax maa ngi lakk carton yi ci gannaaw rideau yi balaa moo xam ne jekkoo gu mu ne ma ñun nag dañu am lu ñu naqari ma ne ko loolu lan la mu ne ma suñu foyer des femmes bi dañ koo nangu bu ko jox ñeneen ma ne ah loolu de problème ndax nag ku nit dem si Sénégal di nga gis le foyer des jeunes gis le foyer des femmes te lu nekk nag bu demee ba wuyoon nen moom loolu moom mën naa wax ne dégg si fa tàpp si lu ñu wax foyer des femmes moom xam naa ne moom ku ko jël ku ne ku dul femme moom li ñu wax sàcc leen yomb na waaye fi nga koy tënk moo jafe surtout nag bu sàcc dënnu jigéen ñi moom xam naa ne fi di mu leen lool bi ma loolu ma ne ko Thiès c'est la ville du développement Thiès c'est la ville de l'implication des femmes Thiès c'est la ville où on a de grandes références au plus haut niveau national euh, je peux citer beaucoup mën naa si yem rek si Mantoulaye Diène bi nga xam ne mu nekkoon référence ma xam si lu bëri li nga xam ne mooy doyen Mikaël Mbaye nga xam ne suñu kilifa la suñu xarit la xam ne dara dama koy faral di wax ne comme man je suis un homme très proche des femmes c'est pas parce que je suis l'unique garçon de ma famille mais c'est parce que ma mère était femme de développement wax naa ko ko et était présidente de groupement dama doon gis muy ànd ak allo dama doon gis muy ànd ak euh, Maymouna Kane di ko gis muy ànd ak ñeneen ñuy ñuy wër Fuuta di dem si groupement yi yore saagam bés bu nekk ñuy dem fii di dem fële di dem fii di dem fële à sax bëggoon naa ko tere waaye ma sentir ne kii li muy def d'abord bëgg na ko gëm na ko te amal na jigéen ñi ma bàyyi ko mu nekk si loolu. mën naa wax ne léegi fi mu toll nii xanaa tànk yee bañ waaye xam naa ba léegi xool baa ngi si moo tax bi ma soxla si ñëwee seet si ma wax ma loolu xam naa nag boobu dafa complot Talla Sylla waaye man nag moom kat dañu mujjee tam moom ak Talla Sylla ñoo dañu maa complot waaye man dama mujjee complot moom ñu dellu si Talla Sylla dafa complot Talla Sylla mu ñëw ne ma ah monsieur le maire nee na bu ñu joxee kër gi daal moom ña ko joxe ma ne ko waaw waaye man tam suñu complot ma ak yow mooy naa leen ko delloo mais damay wax si la dama lay wax bëgg na ngay Talla Sylla fekk juróom benn weer bu ñu ko defarul man nanguwaat ko jox ko keneen mu ne waaw kon nag loolu baax waaye man may wax loolu yàlla xam na ne xam naa ne comme Talla engagé wu na lu mu engagé incha allah dina ko def loolu moo tax dans un délai très court ma jaar fii ndax dizaine nag ku dë ku xam ku ma xam bu baax xam ne dizaine moom suma quartier ndax suma papa vieux Maodo Abdoulaye si bu ñu koy woyee fii si eh, bu nekk fii moom sama papa ñoo bokk ndeeg baay mu nekk fii si quartier bi donc man dama fay jaar lu bari ma jaar fi gis mbir mi soppeeku lool ma am si mbégte bu baax a baax ma xam ne donc li ñu def li ñu waroon def la moo tax jigéen ñi seen centre delloo si nañ leen ko seen foyer yéen a ko moom ñu ngi ñaan li des mooy ngeen jëfandikoo ni mu gën a rafet li des nag tànnal nañ ko ay ay ay ay marraines dañu wax nag lu ñu lu ñu tuddee nit ku ne am nañ si yow ñaari mbir d'abord delloo njukkal ki nga ko tuddee waaye ñaax ñi nga xam ne ñoo ko nar a pour ñu jël royukaay ki nga xam ne moom la ñu tuddee bëri dañ ko tuddee d'abord ay jigéen ñu am ñu am ñu am fula am fayda am ñu ràññee leen seen liggéey waaye bañ ko tuddee ba pare yéen jigéen ñi nekk fii ci suma càmmiñ ak suma ndeyjoor ak suma kanam ak suma gannaaw dañ leen bëgg ngeen jël exemple ci ñooñu pour que li nga xam ne moom lañ xamoon ci yéen démb ak barke dem mu gën a continuer ndax nag tey fii ñu toll nii tey la Sénégal gën a encore développement Eh, eh, jigéen jigéen dugal seen loxo si développement moo tax jigéen ñu ngi leen si encouragé bu baax a baax a baax di féliciter madame la présidente vraiment si engagement am si plaidoyer ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi leen jàppale ñoom Massa nag kulim jum vraiment bu ma yemee si madame la présidente rek mën na yeggal si mbooleem président groupement yeeg mbooleem responsable yi waaye di président di féliciter surtout bu baax a baax a baax monsieur le maire Talla Sylla yëg-yëg bi mooy nga amoon loo xamante ne njëriñu jigéen ñëpp la mu jékki-jékki yàq-yàq goo xamante ne jigéen ñemewu fi teg tànkam kon suñu ñëwee ñu jooytu ko la maire Talla Sylla mu jël 26 millions réhabilité ba macha allah moom beesaat tàq te mu fas yéene ko équipé teg ki ñun du ñu def lu sant ji ndax booy xool jigéen ñi dañoo tasaaroo ci dëkk bi ku ci nekk sa kër nga defoon sa siège fa nga daan yëngatu ndax ku nekk xam na ne jigéen amul doole. koñ bu nekk mu liyee fa kon lii bu amee ñun dañ ciy sant gërëm ci mu nekk benn ouf de soulagement boo xamante ne dañuy wax ne sax mën nañoo wax ne Talla Cité ressuscité na quand même femme de développement à travers cet acte. ginnaaw daje bi ngeen bari na ñun ñu ko ñàkk di jooy xam nañ ne njëriñ li bari parce que dañ fi daan daje di jàng xam-xam di def apprentissage di cuub di ñaw di leplante suñuy bor. di fi togg di fi def activités yi nga xamante ne yëpp dina tax jigéen am revenu boo xamante ne dina ko jàppale ci këram kon loolu la ñuy delloosiwaat mais d'une façon plus organisée mooy actuellement on est en ñi nga xamante ne ñooy organisation femmes mais yemuñu ci nemmeeku organisation femmes mais dañ leen di organiser à travers activités yi nga xamante ne ñoom la ñuy yëngatu bu ñu leen boolee lépp lu fi ñëw muy programme wala leneen dañu xam ne femmes yi ñoo ko yellool ñu woo leen ñu def activité boobu def formation boobu mu mën leen a jën kon loolu bi def lu dimbale leen ci seen am-am dimbale leen ci seen xam-xam je crois buñ ci paree dinañ am sañ-sañ. ndax yan nga du diis bu ñu demee kon si beneen fànn am nga yeneen responsabilité ban. maanaam ci beneen fànn. lu ne mairie biir lu Thiès yow lañ doftal ci maire. am na aussi beneen kuréel boo xam ne Fal Askan yaa jiite jigéen ñi. Mm-hmm. waaw tey lii ñu dénk la mbaa du diis. non defe naa ne est-ce que loolu yëpp àndul. ñoo war a mën a ànd ndax nekk première adjointe au maire Talla xëy na moo andi lii ndax su fekkoon ne amul jigéen ju nekk ci wetam dajale jigéen ñi ñu koy jooytu seen mettit ak di ko wax seen bëgg-bëgg on n'en kon baax na maire bu fi taxaw di déglu ay jigéenam ñu koy wax soxlay jigéen ñi ndax nit ki mënta jooyal keneen jàngoroom ki yor jàngoro ji rek moo ko mën a jooy beneen bi ci des ça va de pair politique bu ñu ko delloo ci véritable contexte am defe naa ne développement bii lay jur ndax maire yi bu taxawee. ñu wax ko mu réhabilité lu day nii mu nekk en droite ligne avec développement je crois que dafa war a mën a ànd kon politique nañ ko sellal mu ànd ak développement muy jëriñu askan wi non kooku su may wax ci moom référence chef service départemental man mii di wax ak yow ak maire yi ñu honoré léegi lu ñu xam ak lu ñu mën aw xol la moo ñu tegte moom moo dem ba dagg Thiès en neuf zones ndax boobu da ngay xam ne que le bureau communal rek mënu woon a gérer femme kii yëpp mu ne bu ñu leen regroupé non seulement daf ko def par quartier yi nga xamante ne presque ñoo bokk ay soxla bokk ay identification ñu boole leen foofu ñu teet loolu defe naa ne loolu ba léegi dafay valable kon nit ki bu defee benn gestion organisationnelle bu am solo da koy day topp organisation boobu faciliter leen ndax tant que on n'est pas bien organisé euh, on ne gère pas euh, euh, l'organisation des organisations du def tey euh, ñi ñëwul ne ñoom peut-être dañoo bokk ci beneen parti politique gis nañ ni politique da si laxasu je crois que may mën a mi taxaw si ñu sama wet année une parfaite illustration te bu ngeen ñëwee fii ñuy jox bale yi man ku nekk xam ne ma du boole politique ak développement dama ko xàmmee bu ma xasee dugg fii musoo rama ñor su ma xasee dem sama parti nag damay ñafe kon bokkuñu kon bokkuñu programme bi mu programme bi 26 millions yu maire dégagé la 400 et quelques femmes dinañ bénéficier wu ci loolu ci bale yi li may ñaan kay mooy exhorter ces femmes là à ce matériel bii ñu leen jox ñu fexe ba la tax mu jóg ñu def ko ci mooy jàpp naa ne koñ ñi dinañ set jàpp naa ne lii ñu leen jox ñoom aussi te fekk na ñenn ñi dañ ko daan utal seen bopp di ko defal seen bopp buñ leen ci appuyer day gën a nekk rek loo xamante ne dina leen gën a jàppale ci seen activité boobu kon man loolu laay soññee jigéen ñi tey dinaa ko topp nag dinaa jël sama responsabilité ak comité bi ñuy teg ñu dugg ci quartier yi def ay visite inopinée di xool maire daf ko fàttee wax sànq nee na dina primer quartier yi nga xamante ne ñoo gën a set kon defe naa ne loolu rek war naa tax jigéen ñi war a góor en tout cas bu ret bu ñu fekk ci biir kër te liggéeyee loolu li nga xamante ne moo war mu jóg ñun dinañ ko nangu jox ko ñuy liggéey. madame le maire euh, Dóor baa ngi xuus dem euh, askan bi léeg-léeg dañuy sonn ndax soxna yi dañuy sonn yéen lan ngeen teg euh, ndóol boobu mun a wàññeeku bu baax a baax. ndóol ndóol bi ci jëkk man dama naan mënuñoo xeex ñàkk tant jigéen ñi xamuñu kon ñu renforcement de capacité boobu ñu wax leen lii ak lii ak lii la ñu war def boo ko defee ba pare nga jàppale leen ci seen am-am ndax nag bu ñu amee te mënuñu koo saytu. du ñu dem fenn loolu nag bu ñu ko defee ñaar yooyu ba am ko di ngeen xam ne jigéen dina doj dina am pouvoir am réellement te dama leen di wax fii ñu nekk foyer de la femme personne ressource yi nga xamante ne ñi ngi ci domaine yu nekk dañuy taxaw fas yéene jàppale jigéen ñi pour ku ci nekk mu am xam-xam bi nga xamante ne moo nekk ci yow nga transmettre ko jigéen ñi def naa ne bu ñëpp dajaloo on aura la femme modèle bi nga xamante ne soxla nañ ko daan le cadre du développement merci merci